salaam mbokk yi xaritu ñuy seetaan ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di am mbégte bu baax a baax encore une fois jàkkaarloog yéen fii ci seen chaîne leader Equivox TV dans un autre numéro de votre émission Vox People tey nag euh, ñu am honneur euh, dalal koo xamante ni macha allah kenn dootu ko Sénégal muy un acteur boo xamante ni nii day yëngu ci li nga xamante ni mooy cinématographie il se nomme tout simplement Pape Cory Sène de son vrai nom mais plus connu sous son nom d'acteur dama koy daal di nuyu rek euh, ziar ku baax rek nga nuyoog téléspectateur Equivox TV bi ñu seetaan. waaw euh, déjà dama leen di sant di leen gërëm ci euh, interview bi di nuyu mbokku téléspectateur Equivox TV internautes yi di nuyu Sénégal di nuyu képp ku képp kuy bëggee idole di bëggee Hercule Hercule euh, bëggoon nañu xam rek kan mooy Hercule en résumé rek nga wax ñu kan mooy Hercule. waaw euh, Hercule en fait euh, c'est un personnage dans la série Idoles di interpréter un rôle de Faaxuman ou Boojuman bon ça dépend ci li ko ku nekk di déggee mais en gros loolu la di di rôle boo xam ni dañ koy interpréter di ci véhiculer benn message muy lan muy ñi nga xam ne tey jii ñu ngi ci mbedd bi di dund ci mbedd bi. am loo xam ne peut-être ñu ngi koy euh, du ci mbedd bi loo xam ne amaana àdduna umpale nañ ko ñun tey ji loolu la ñuy loolu la ñuy fësal ñu xamuloon xam waaw. Euh, balaa ñuy ñëw ci li nga xamante ni mooy UDAL bëggoon nañ xam rek sa intégration ci biir euh, ci biir Evenprod nu mu demee. bon sama intégration par rapport à la série comment j'ai été euh, pris tout bon ça s'est fait par waaw. dama j'ai passé le casting. Euh, ah léegi casting am na rek nga dem nga ne xaaral ma dem. waaw en fait euh, je l'ai su par euh, Adams c'est un grand bien avant la série euh, moom moo ma xamal casting bi xamal ma ne actuellement léegi on est en train de faire un casting pour la saison cinq et six ci laa ko ci laa dem passé le casting ils ont retenu mon profil et puis voilà. noonu la noonu la noonu laa intégré fii. nga ñu jox la rôle li nga xamante ni mooy Faqman Boujman comme tu le dis. Euh, je dirais qu'en fait euh, casting boo koy def mu yomb mënoo xam mënoo xam li tax ngay def casting bi c'est-à-dire casting parce que t'as envie en fait d'intégrer un produit. mënoo ni yow casting bi koy def tu seras pris pour un rôle de tueur ou de quoi que soit mënoo ko xam une fois c'est-à-dire ki lay jël mm-hmm. la personne mi. kii euh, ki nga xam ne moom mooy choisir sa profil moom mooy jël sa profil par rapport par rapport au personnage bi nga xam ne yow moom nga moom nga moom nga correspondre. mais yow comment tu te sens sur rôle boobu noonu rôle buuju maan bi. très hmm. à pour dire vrai parce que en fait euh, man je man en fait cinéma je cinéma dama ko bëgg sama xol. du coup tey jii nii personnage bi ñu ma mën a jox je ne peux que sentir à en fait. buñ ma joxoon leneen lu dul buujumaan dama koy defee ni ko war. ci tournage bi bëggoon naa xam rek euh, est-ce que Hercule parfois di nga di nga ba ci yàgg nga nga sentir comme buujumaan ni ngeen nekkee ci mbedd bi tout parfois mën ngeen tourner sax ci seddaay ak seen yére yi ngeen di sol parfois du doon lu métti ci yéen trop. non doon lu métti du doon lu métti parce que mooy li ma la wax sànq maam booy def benn affaire euh, da nga koy def en fait da nga koy def nit ñi ñooy gis peut-être saleté bi ñuy gis noonu ñun ñooy gis yére bu saleté bi gis peut-être que yow chanté t'es crasse en fait mais yow mi koy joué c'est-à-dire yow tu le fais avec euh, avec avec un immense plaisir yow tu le fais avec un immense plaisir ñu joué nañu sax séquence boo xam ne si taw lañ ko def non du ma bon du metti mooy li ma la wax sànq yow tu le fais avec plaisir en fait parce que yow déjà boo xalaatee ne li ngay dem ni déjà tu le fais pour des gens yoo xam ne tey jii ñoom euh, dañ la bëgg cest à benn nit bu la bëgg rek day jar day jar maam nga jaayante ba dee day jar nga jaayante ba dee moo tax en fait man mënu ma mënu ma ci gis métit personnellement man mënu ma ci gis métit mbégte laa ci gis est-ce que mën naa xam euh, lan lan nga ban séquence moo la gën a marqué ci si biir euh, série boobu noonu idole euh, mosoon naa ko wax ci sama benn interview on m'a posé la même question man leen man ñun suñu séquence yi ñuy joué yëpp pratiquement c'est tout de séquences marquantes en fait séquence bu ne am na lu muy lu muy lu muy lu muy lu muy dégagé ci yow mi koy joué ci ki koy seetaan mais dama naan séquence bi nga xam ni maanaam ñu ngi yóbbu shérif jour bi ñu ñëwee xamal ñu ni waaye shérif c'est un imposteur nous a menti depuis le début c'est un fils de ministre c'est un ni nanana yi nous utilisé et tout ñu yóbbu ko séquence boobu noonu non mais attends ça a dégagé quelque chose de trop fort franchement parlant jour boobu noonu c'était autre chose waaw waaw c'était autre chose waaw nga gisee euh, message bi nga xamante ne nii moom nga war a véhiculer lan tey jii bu amoon conseil booy jox ñi nga xamante ni ñoo nekk ci mbedd bi doon ay faxmaan doon ay bujumaan duñu blâmer kenn parce que ku nekk xam nga ku nekk am nga say raison yu tax nga def loolu noonu tey boo amoon tey conseil yoo leen di jox en tant que Hercule bi nga xamante ni dund na ci biir idole rôle bu faxmaan di ko incarner tout. tey bu amoon conseil boo leen di jox ak danger yu nekk ci mbedd bi yëpp lan nga leen di wax. Euh, conseil je dirais plutôt sensibilisation plutôt que conseil parce que en fait euh, man si du genre déjà en ne juge personne man dama naan ku nekk ci mbedd am na foo jóge nit tëbul ak dugg dem ci mbedd bi ba nee naa xale bi nga xam ne tey dañ koy for sax maanaam tey jii nii euh, il était destiné en foyer donc ku ne am na foo jóge mais nañu jéem a xam maanaam ki nga xam ne jóge na euh, mi ngi ci mbedd bi la moo fa yóbbu en fait c'est ça la question à se poser c'est la question à se dire tey jii boo xoolee tey jii ñu ñu ñu doon lu ñu doon message bi ñu doon véhiculé euh, mooy lan mooy tey jii nii euh, am na nooy mel dañ lay xel Sénégal dañuy jugé nit ci ci ci ci ci melokaan. tey yow la même personne tu peux avoir deux deux deux deux apparences différentes tu vois dans un même endroit on va attaquer yow d'une façon différente xaw ma ndax yaa ngi comprendre li ma wax maanaam tey jii nii melokaanu bujumaan boobu noonu c'est-à-dire t'es en t'es en t'es t'as t'as des habits sales am na nooy demee peut-être benn am na ci kër gooy dem fëgg amaana fa duñ la bàyyi nga dugg yow la même personne tu pars tu prends une bonne douche, tu mets des habits propres, tu reviens, on, on, on t'accueille différemment. Alors que xamuñu ki nga doon donc loolu c'est des choses à, à tenir en compte en fait waaw pour dire que en fait kenn bonul peut-être euh, nit am na loo xam ne mooy tax nga am noo mel waaw am na loo xam ne day am day tax nga am noo mel nit am na lu am na lu koy changer am na lu koy inciter mu def loo xam ne peut-être bu ko def mais loolu il faut aller au fond de au fond des choses et tout jéem a découvrir jéem a xam donc là gis nañ ni gis nañ ni yow ci biir euh, ci biir idole yow yaa ci nekk koo xamante ni da ngay jaay doole xam nga bu bu ñuy seetloo Hercule sax buy dox day jàpp koo ci ko wax Hercule rek mu ne la xanaa kooku nga xamante ni ku ku <laughs> xaw ma sax nan laa la ko mën a expliquer ponxal bi di jaay doole bon ci série bi loolu noonu naka naka naka nga koy dundee noonu nga mel naturellement wala. non non quand on parle de personnage ça n'a rien à voir avec la personne elle-même. voilà ça n'a rien à voir la personne elle-même loolu c'est c'est un personnage c'est ça mon personnage sama personnage moo laaj groupe de quatre ku ne ak sa euh, sa caractéristique kii dafa calme loolu jaay doole waaw non personnage la moom laa lay wax personnage la xam nga tey ji nii euh, bon peut-être on est dans un dans dans dans un pays boo xam ne peut-être cinéma amu fi benn benn impact bu tax tey jii nit ki la nit ki peut faire la différence entre la la personne dans sa vie euh, courante et le personnage dans le cinéma maanaam loolu sam personnage la cest dire bu ma kenn jugé ci ni ma mel noonu ci biir série bi le gars bi nga xam ne foofu fekk c'est-à-dire il a même un problème pour sourire foo ko fekk ñu ngi fas kanamam comme ni ñu koy waxee damay jaay doole waaw mais personnage bee ko laaj personnage bee ko laaj man maa gën a bëgg reetaan maa gën a bëgg ruube maa gën a bëgg jaay pare ku waaw ku munti doon mais voilà personnage bi laaj loolu dama koy jox li mu dama koy jox au max waaw li mu laaj dama koy def waaw bu laajee fa sama kanam gi ba sama kanam gi sans sax ma def ko problème. mais ñu gis aussi ne ci euh, saison 7 bi gis nañ tuuti changement ci rôle bi ngay incarné par rapport ba ngeen demee ci mère boobu euh, mère aliment ku ci nekk mu laaj la li nga xamante ni moom nga moom nga bëgg a def mm-hmm. yow ñu gis ni da nga ni da nga bëgg a def salle de musculation nga bëgg. yow léegi yow naka ngay dundee actuellement loolu noonu ci biir série bi. bon loolu je dirais plutôt je je dirais de de voilà de regarder la de regarder la série pour savoir ça moom c'est une question boo xam ne je pourrais pas vraiment voilà quoi. <laughs> mais mën nga ñu ci expliquer xam nga mbu bujumaan nga doon def bi yoon Hercule ñëw ne day changé nekkatul ci mbedd bi solatul ay yére salté dafa bëgg a ñëw dafa bëgg a changé indi leneen expliquer ñu tuuti ñu xam. mooy li ma wax rek. xam nga en fait. entre dundu buuju man ak euh, dundu dundu beneen buggan ci yow. yàlla daa def ci série bi taaliba gis ñu yërëm ñu ku nekk mu am yéene dimbali la léegi dimbal googu noonu <laughs> ku nekk day dem xool ci série bi ñu taaliba dimbali <laughs> waaw du noonu. Ah, <laughs> waaw doo ñu expliquer tuuti rek ci loolu noonu. man est-ce que mën na xam naa li may expliquer est-ce que ma xam naa sax. xamoo ko. je sais pas sax ma loolu lay expliqué du ma xam sax lan laa lay expliqué. waaw gis nañ ne aussi waaye nañ tëj loolu noonu comme nangu woo xuus dañuy daal di tëj loolu noonu bëggoon nañ xam mhm. sa relation ak ñi nga xamante ni ñoom nga àndal mooy seen team bu jumaan bi ku ci mel ni ay ñoom Pape Boubou ñoom Xos mhm. ak euh, ñeneen ñoom Kala mhm. relation bi ngeen am en dehors série bi. on est une famille on est des ah, chaque jour que Dieu fait on mën a xool tout le temps pratiquement ñooy nekk H24 Pape Bouba waxi nopp Kala waxi nopp on est tout le temps ensemble on est tout le temps ensemble on se voit pratiquement tout le temps on se parle tout le temps donc voilà en gros on est des frères on est une famille waaw. est ce que da ngay saan yeneen séries yi daaw si yeneen télé est ce que da ngay saan yeneen séries. loolu question piège la wala. <laughs> non pas question piège dama laaj rek bu dul idole ak yeneen séries yi daaw am na Pod Marichou am na Mœurs Golden yooyu yëpp est ce que da nga koy seetaan. waaw dafay seetaan yow. lan mooy sa acteur préféré wala actrice. Euh, pour dire vrai sama sama acteur sama référence si cinéma sénégalais c'est Babacar Wali Chérif Mar. mais waxuma la idole de yeneen série laa wax. non da ne ma sa acteur préféré nga mu wax. non ci yeneen série laa la wax waxuma la ci biir idole de yeneen série. série bu ne ma wax fa pour sama acteur préféré. non série yëpp wiiri wiiri am na. waaw Pod et Marichou am na Mœurs am na Golden am na da nga koy seetaan n'est-ce pas. wala doo seetaan yeneen série beneen série bi du idole. man nag pour te dire vrai man je suis plus benn instant nii concentré sur les séries américaines les séries tu vois les séries extérieures. kon yow daal doo seetaan yëpp nag damay seetaan yëpp damay seetaan yëpp mais soo toogee naa may sa acteur préféré aussi tu me mets mal à l'aise en fait parce que mooy genre yow tey série bu ne da nga ko war a mais am na kenn koo xamante ni nii sentir nga ko li muy def neex na la. un jour viendra bëgg nga wax man waxuma la si biir idole. non mais eh, ma Chérif Mal joué wul idole kese Babacar Wade il a joué dans Golden. Ah, kon yow daal Chérif Mal mooy sa idole. c' est mon acteur c' est mon idole c' est ma c' est ma référence. Eh, damay root ci damay root ci moom damay root ci moom je tey jii nii man moom mooy moom mooy sa moom mooy la personne bi nga xam ne voilà quoi tey boo ne woon bu ñu woon tey jii maanaam ci kan nga mën a rootee maanaam ci kan nga mën a jàngee eh man je dirais Babacar Wade. daal loo sànn benn série. non mais lan mooy du ma seetaan nee naa damay seetaan. damay laaj damay seetaan yëpp laay seetaan yëpp laay seetaan lépp <laughs> bàyyi ma benn lépp laay seetaan. waaw baax na dina leer léegi yow naka ngay dundee vie bi nga xamante ni bi célébrité bi comme ça nga génn ci mbedd bi gars yi naan Hercule la ñu ne naka ngay dundee loolu noonu. bon le plus le plus naturellement possible ah sérieusement man je calcule même pas que voilà quoi je calcule même pas que je tout tu parfois damay dox sax man Fatou Ndiaye daal man je suis je suis dans un truc je suis acteur et tout. damay dox mais parfois est-ce que doo génn gars yi gis la rek euh, commencé waxu bu ñaaw comme ni ngay joué xam nga parfois sénégalais yi duñu duñu comprendre vie professionnelle ak vie wax bi normale parfois mun nga génn ñu ne Hercule ngi nii rek jaar fu ñaaw genre yooyu noonu ba arrivé nag ko nga koy dundee. bu la arrivé woon. mayu ma nit kanam boo may gisee ne di ma wax lu ñaaw franchement pas mayu joxuma nit waruma nit kanamu yabel boo xam ne di nga ma gis di ma wax lu ñaaw bon certes di nga gis ñoo xam ne dañ la gis ruubee la tu vois genre waaye amoo doole tu vois maa la doole mais bon da nga xam ni kii ci li wax nii genre c'est c'est voilà c'est une blague day wax ci mbalaat ñu kafre et voilà jàll ci leneen gars et puis tout temps ñi la koy wax ci li ñu tegal mooy franchement chapeau à vous li ngeen di joué naef na xam nga complimenté tout mais may nit franchement kanam boo xam ne di nga jaakaarloo man am sañ-sañ di ma wax lu ñaaw parce que wanuma lu ñaaw wanuma lu ñaaw franchement waaw mais man je suis acteur je suis je veux pour le cinéma sénégalais en fait le but c'est c'est c'est d'importer le cinéma sénégalais c'est-à-dire c'est c'est aller au-delà des frontières c'est pas stagne au niveau du Sénégal waaw ah, c'est pas que stagne au niveau du Sénégal te ñaan nañu yàlla tey jël cinéma sénégalais yóbbu ko foo xam ne voilà quoi tey jii nii ça va ça va bon je dirais peut-être rivaliser avec avec les deux avec les autres pays tey mi ngi nii tey boo nee Afrique tey jii tey cinéma cinéma bi tey niveau côté Nigéria fu mu ngi ci level boo xam ne laisse tomber donc pourquoi pas tey ñu yóbbu fa niveau kii cinéma sénégalais c'est-à-dire faut que les gens sa sortent ça de leur tête quoi genre qu'il y a une rivalité amul benn rivalité au niveau des ou bien au niveau des niveau de production ku ne yaa ngi def li ngay def ah ku ne yaa ngi job ku ne yaa ngi teg sa produit tu vois yaa ngi war say acteurs ñu ngi joué li ku ne am nga sa public mais da ñoo xam ne ñëpp lépp la ñuy seetaan ah. day gis ñoo xam ne se seetaan série yëpp kon nga xam ne kon voilà foog nit ñi génnee genre esprit de esprit de de de concurrence boobu de de rivalité je veux dire bon peut-être concurrence ça c'est très normal loolu c'est mais que ça soit saine que ça soit une concurrence saine mais pas rivalité c'est-à-dire tey boo toppee yenn wax yi après tu vas te faire des idées mooy tey jii sax mun na jur loo xam ne da ngay romb tey jii sa moroom acteur parce que le gars il est dans il est dans une autre série genre kon voilà amoo leen pour non non loolu yëpp dof la man je parle beneen saa ni man ko ku ma ne ku ma xam ne acteur nga moo tasante ak yow dañuy dañuy dañuy dañuy dañuy waxtaan dañuy dañuy wax nañu dañuy dañuy saafante seeti jàmm. ñii euh, comme comme ñii def comédie Sénégal ak am nga ci fan ci nga ci bëgg genre. comédie. ñi xamante ne boo ko seetaanee réew a dee. waaw bëri na de. <laughs> waa ju baax daf may rey. caamaas daf may rey caama caama xam nga caama waa ji de xaw ma kóor gi yow tout le temps waa jooju noonu non mais laisse tomber il me fait rire ak njool toj toj <laughs> non mais laisse tomber man je peux je peux t'en citer benn instant nii genre je peux t'en faire une liste non bëri na ñu may daaj xaw man moom yan saa dama naa est-ce que ñàkkuma fay dama li ma reetaan loo boo yomb <laughs> non mais sérieusement non mais ñoom moom dañ may dañ may daaj ay ñoom saaneex yi tout ça voilà man mooy loolu dañ may dañ may gars yi ils me font ils me font comme ni nga ko gisee ah Hercule la ñu am bu idole moom la ñu am tey comme invité mais Hercule bëggoon naa xam tu es marié ou célibataire. je suis marié. tu es marié depuis. je suis marié depuis euh, ça fait combien de temps euh, 2014 ba léegi ça fait combien de temps ça fait cinq ans. ah madame. mu ngi France. ok waaw. Ah. non loolu moom loo xamante ne nit ñi xamuñu ko woon ci yow. parce que ñëpp dañoo jàppoon ni Hercule célibataire la. ñu bëggoon xam rek euh, ce mot de la fin ak lu say projet bon mes projets bah je dirais plutôt déjà le projet le projet majeur c'est quoi c'est déjà d'être euh, franchement euh, en haut de l'échelle au niveau cinéma je dirais pas sénégalais au niveau cinéma proprement dit même jaayante ko ba nekk carrément en haut de l'échelle euh, a d'autres projets il y a d'autres projets yoo xam ni déjà ñun à notre niveau rek <clears throat> suñu groupe bi noonu on a créé déjà une marque boo xam ni sa s'appelle euh, Body Style kon boo xam ne on est en de voilà de promotion et tout euh, donc euh, y a pas mal de projets duñu waroon toog fii di seede je pense que tey jii duñu fi jógee pour euh, pour le mot la fin déjà comme euh, comme je l'ai dit à tout au début déjà dama leen di jaajëfal yéen waa Equivox TV Et encore une fois, je vous dis euh, tous les internautes d'Equivox TV, les téléspectateurs et tout. Et des big up les fans d'Idol, plus particulièrement les fans d'Hercule. maa leen big up leen jaajëfal am leen jàmm daal. ñu lay jaajëfal ñu nit bu baax ci disponibilité bi waaye ah, leen leen indiloon ah, ci biir ah, Vox People Hercule bu Idol di leen jox rek rendez-vous très bientôt incha allah feneen ak keneen. jaajëf